wajal kalaami rashidan wa murshida wa fikrati nawwir wa qalbi arshida anta alladi allamta luqmaan alxikam wa liyahab bil mustafa xayra shiyam mbokk yi ñu seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew yépp ñëwaat nañu ak yéen gannaaw buñ ñu sante suñu borom tabaraka wa taala julli ci yonent bu tedd bi eh, ñëwaat nañu ak yéen ci émission yu am solo yi nga xam ne compagnie Serigne Seck moo leen koy may di leen gunge ci weeru safara bi nga xam ne mooy weeru Cheikhul Khadim ndax ci weer wii la génne woon liggéey li ci lislaam waaye yëkkati euh, baatu laa ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ànd ak ñi mu ko àndal yépp ñii de ay taalibeem ñii di ay mbokki deretam ànd ceeg ki ñu ci daan àndal muy sëriñ maxtaar kebe moom Cheikh Saalihu Mbàkke tey ñu war a ñëw ak yéen ci Cheikh Ahmadou Bamba wal iqtisaad mooy sëriñ Touba ak économie sëriñ Touba bu ñu ko doon jàngat ci wàllu économie lan la ñuy wax ndax niñ ko jàngatee ci wàllu diine noonu lañ noonu lañ ko mën a jàngatee ci wàllu économie yooyu yëpp ak yu ci aju sëriñ Maxtaar Kebe dinañu ci dikkal incha allahu rabbi waaye laataa ñuy dugg ci waxtaan wi ñu ngi gërëm suñu technicien sëriñ Maxtaar sëriñ Moustapha saar mi nga xam ne mooy coordonné liggéey bi di monte monte yu am solo yi waaye fàttewuñu itam alaaji Fàllu Seck mais fàttewuñu suñu xarit suñu wëllëre sëriñ Dame Touré yàlla yàlla guddal seen fan te taxawu leen te jàppale leen zahiran wa baatinan sëriñ Maxtaar laataa ñuy dugg ci waxtaan wi dañ lay wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu sëriñ Omar Silla maa ngi lay nuyu bu baax di la ziyaare di nuyu sëñ Moustapha Sarr technicien bi di jot li nuyoo sëriñ Ndiaye mi ma àndal. di nuyu nag bopp yoon wi Cheikh Mouhamadul Mountakha. di ko ñaanal fan wu gudd lool wu ànd ak wér. di ko ñaanal njabootuk sëriñ Touba gépp waaye taalibe sëriñ bi ak jullit yi nga xam ne ñoo bokk réew mi. ak it ñi nga xam ne ñoo bokk réew mi doonte bokkuñu ay pas-pas mhm. bàyyiwuñ kenn mhm. euh, di nuyu nag alaaji sëriñ Seck c 3 ak ñi mu ko seqal ci liggéey ñoom ñëpp sëñ Fallou sëñ Daam ak euh, mbooleem banqaas yi fi ñu nekk ci Sénégal mhm. ak fii nga xam ne mooy siège bi tey ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu baax di leen gërëm te di leen sant xam naa euh, suaal wajih la muy sëriñ Touba ak économique baatab al iqtisaad min iqtasada yaqtasidu muqtasidan day mel ne mooy koo xam ne daal day am te lam am du ko yàq hmm. noonu lañ koy tekkee mooy ci am te lim am du ko yàq mooy muqtasid hmm. moo tax safaanu muqtasid nag mooy musrif wa anna al musrifina humu ashaabu naar yàqkat yi ñooy ñooñ sawar wala iyaas billahi taala kon pasar pasar hmm. mbokkum seytaane la inna mubaddirina kaanu ixwana shayatin wa kaana shaytan lil insaani xadula kon yooyu yett boo ko comparé da ngay gis ne kii jaamu yàlla doy lool li mu am te bañ koo yàq tey wut mu dolli ko kooku mooy muqtasid ki nga xam ne day jël alalam di ko firkase du ca def farat du ca def sunna kooku muy musrif ki ku ñetteel ki nag mooy mbokkum seytaane te mooy moom tabdir rek tàyyi naa def farata tàyyi naa def sunna la muy def lépp yàlla bugg ci dara wala yàlla taala bokk yi sallallahu alayhi wa sallam dane activité ab jullit lépp ak jaamu ak jaamu yàlla la mhm. activité bu jullit bi def mhm. ak jaamu yàlla la mhm. kon daa bokk ci jaamu yàlla julli juróom daf caa bokk aj màkka daf caa bokk natt azaka daf caa bokk woor weeru koor waaye daf ca bokk dem tool ca ña nekk ca tool ya dem ca bureau ya ca ña nekk ca taax ya dem ca liggéeyukaay ya ca ña nekk feneen loolu da suñu sant ab julit borom xam-xam yi nag dañ ne iqtisaad dafa am tanmiya dañ koy yokk tanmi ak tanmiyatul iqtisaad mooy nga développer économique bi économique am na mais nga fexe ba mu yokk ci lan mool bi am na nu muy yokkee économique am mhm. jaaykat bi am na mu koy yokkee bureaucrate bi am na nu mu war a participer ci com économique mu yokk ba ci jàngalekat yi ak yarkat yi benn boroom xam-xam bind ne bépp réew 70 pour cent ca la ñuy jëfandikoo bu fekkee ñoo koy bay moom a réew génn na ci ndool su ko dee jëggaani nag dugg na ci ndóol bépp réew bépp réew boo xam ne 70 pour cent téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ya ca biir réew ma lay jógee. ca bitim réew lay biir réew ma lay jógee. ca biir réew ma lay jógee. moom réew bokk bokkatul ci ndóol su ko dee jëggaane bitim réew nag mhm. dugg na ci ndóol. ak bu mu mën ak ay yan kaana. jërëjëf moo tax gis nga saba sinina da ban jooju saba. Mhm. sept ans. Mhm. da ngeen ko bay du ngeen am dara. mais bala ngeen dugg ci at yi ngeen dul am dara da ngeen am dara ci juróom-yaari at góorgóor leen ci juróom-yaari at yi denc ca lu ngeen mën a yóbbu ci juróom-yaari at yële. Hmm. kon ci ngay déggee ne ndekete sakkanal lay tax. nga mën a génn ñàkk yàq gi nga doon wax léegi. waaw sakkanal rek moo la ci mën a génne. mooy mm-hmm. muy muqtasit bi baatu muqtasit bi nga doon leeral. Mm-hmm. Joseph wala mm-hmm. Youssouf. lim njëkk a digal waa dëkkam. mooy bu ngeen amee juróom-yaari at yii mu baax. dee leen lekk te bañ a yi su ko defee bu juróom-ñaari at yee dikkee da ngeen am. du ngeen dundee du ngeen dundee mooy sakkanal boobu ñu wax. te bañ a yàq te saat tegtalewul xaalis bu bari. waaye xaalis bu te te di ko yokk nag muy bari. su ko defee xam naa bala maa ñëw ci sëriñ beeg eh, iqtisaad li tax liggéey baax doon kay liggéey daa gën nga doon kay nga doon kay laaj dafa am waaju baax ab taalibam di tukki garab gi mu yendu di noppalu séen ca picc moo xam ne amuti donk gumba teg ca mu toog ne waa picc mee tey fu muy añee yàlla woo yàlla mel ni picc jóge fële indi lu picc ma lekk si tuuti mu indi joxaat picc ma mu naam taalibe bi daal di ñibbisi ca sëriñ ba mu ne ko yow teel ngaa wàññi ko di mu ne ko damaa gis lu kiimaane mu ne ko loo gis mu ne ko damaa gis picc moo xam ne fa mu ne ginnaaw moo lekk naan su ma nekkee sama dëkk bi dinaa lekk naan kon jërul may dem sëñ bi ne ko nu picc ma def mu ne ko moromu piccam daal moo ko doon yët muy lekk mu ne ko léegi nag mu ne ko man daal picc mi ginnaaw na am lu lekk naa sama dëkk mu ne ko dangaa waroon def ba picc muy indi la ñu lekk nag te bañ a doon picc ma ñuy yët muy lekk. Hmm. xam des na ko dee gëm de foofa da kon ki ko ki ko doon jox muy lekk. moo ko gën moo ko gën. waaw kay kon nag. Hmm. Hmm. iqtisaad. ndax mënut a ñàkk ci benn société. sëriñ Touba nag radiyallahu anhu sëñ Basiiroo ngi nettali ci minul baaxil xadim bi mu ñëwee Bawal. te gis ne waa Bawal am na lu ñuy wax nexwa. nexwa ci arab muy ak yaccaaral. wala bëgg toog muy dox lañ koy tudde léegi. wala ay lijjanti. ay pexe daal ay pexe pexe ba dund rek. mu ngoog ci la daal di jële nag li ñu ak der gu ñu takk ci ndigg ak simiñ wu ñu gàddu ak jumtuwaayal xarala yi nga xam ne day aju ci liggéey ki fàggu ko ngir lan mën a toj ab àll suñ ko tojee ba noppi di ca liggéey te lañ cee liggéey buñ ca jëlee seen hadiya ba noppi ak seenu dund ñu delloo war ko ci yàlla yi mhm. bii plan Sëñ Tuubaa moo ko fi njëkk a digal Cheikh Issa Diène mu dem Lagan mhm. xam nga ne lam fa jëlee bari na mhm. Cheikh Issa boo ko masaana wax soxla ngeeganaay bi muy teg boppam ci lay mhm. yëkkati jox la bàyyi fa la ca des Allahu akbar Cheikh Ibrahima du ko ñuy wax moom moom mooy lépp yoon wi liggéey joxe te li muy joxe mi ngi del war ci jaami yàlla yi moom ci lañ ko xamoon Cheikhul Khadim 1912 bi mu jógee ci yéen fekk jaar na jóge na ci géej gi ba dem gànnaar amoon na juróomi at ci yéen douze la ñibbi si njaareem bi mu dikkee dafa wax Cheikh Moustapha ak Cheikh Mamadou Fadal ne leen ci la sëñ Modou Moustapha sañ ca Tindoodi mhm. sëñ Fallou sañ ci Ndindi mhm. yeneen rakkam yi mu sañc loo uh, sëñ Masamba Daaru Karim mhm. fekkoon na booba mu jox uh, Daaru Salaam maam Cheikh Anta ku mu ci ñoom nag bala sañ bay jox barab ba dane la dem fa yaag ñi nga àndal ngeen di fa daan seen doole te julli jotee nag seen diggante ak Tuubaa mëtut fu nit di ñàkk julli si ajjuma na nga ñëw julli si mm. ajjuma mm. lii ma a dëkk yooyu diggante mag tubaa mm. manki mm-hmm. maanaam julli euh, fa la ajjumay wàcce mm-hmm. Cheikh Moustapha ak Cheikh Mamadou Fadal liggéey nañ fa ba dajale fa loo xam ne dem nañ ba arrangé tubaab bi ci xaalis boobu ñu doon wax léegi mm-hmm. te loolu la leen ko may mooy liggéey sëñ Tuubaa daf daan teg naan na ngeen nangoo jaamu yàlla te dem liggéey su ngeen jaamoo yàlla ëllëg seen digganteek seen boroom dana leer su ngeen nangoo liggéey itam du ngeen topp kenn ba kooku di leen dugal fu ngeen bëggut nee na asgoor balaa mën a moom boppam day nangoo liggéey su nangoo liggéey rek bu ëllëgeeg si biir du topp kenn kooka di ko jox loo xam ne day tax bu ëllëgeeg si biir mu ëmb as cànqalam bay ëmb as kersaam kon lu ko daan santaane liggéey la ngir garder ngor ngir garder ngor garder dignité ak jikko yu bare bare yoo xam ne rek ñàkk da koy da koy maanaam foofu ah, day tax mu dem waaw mhm. borom tànq sa ndoxum xar kanam jox ki ngay laaj la soo soo dee tanq nag bu yàggee dootu am ndoxum xar kanam. dëgg moo tax ragal ko sax taxoon na benn borom xam-xam. di jàngale ne këram mu mu xumb lool. Mm-hmm. benn waaye daal di wut ab butéel pentir ko def ci ndoxum teen ñëw ne ko dama koy jaay mu ne ko ñaata mu ne ko fukki junni waaye daal di jël butéel bi rek daal di koy jënd fi saasi. Mm-hmm. bi mu demee doom ji ne ko bàyyi mu ne ah mu ne ko waa ji nax na la mu ne ko lu ma naxee mu ne ko butéel ne mu ne ko bul àggale maa la a moos. Mm. daa am soxla fukki junni te bëgguma laaj ndoxam xar kanamam mi di dem mu jël butéel bii jaar la ci laaj bi ma jàll ma jël butéel bi jaar la ci jox gi que kon ab jullit bu liggéeyee moom boppam ndax bu amee te yàqut sax Abdoulaye daana ko wax nañ dem ca tool ya liggéey te lañ cay jëlee ñu bañ ko yàq ndax suñ borom nee na yàq inam badrin kaanu ixwaana shayatin daa jàng aaya ba daa ne wa anna al musrifina hum ashabu naar pasar pasarkat yi sax ñoom yàlla dogal na ñoom ñooy waa sawara kon noonu nga xam ne nag sëñ Tuubaa dafa woowoon taalibeem yi ci liggéey ñenn ñi mu sant leen ñu gore ay dëkk ànd fa ak seeni taalibe biir këru njaareem gii ab atelier ay atelier fi nekkoon ay atelier yoo xam ne yii ay lal la ñuy defar ñii ay teg lañuy defar ñii ay jaafare lañuy ñuy defar ci biir mag ñi ci seen bopp amu ci kenn ku daan toog te amoo woon métier benn soxna yi woon ci biir kër gi sëñ bi daf leen am na ci ñoo xam sax daf leen lebaloon xaalis pour ñu mën a def commerce di ràbb ay sir di ko jaay. soxna muslim Mbakke di def ay ko ay kol mhm. di ko jaay. Mhm. nga xam ne ci yooyu dem nañ ci ba seen sas bi ñu leen sasoon ci seen liggéey boobu ñu leen liggéey ñoom soxna yi ak seen ñi ñuy yar. Mhm. ci la ñuy yëkkatee lañu seenu sas di ko ca joxe. macha allah kon Cheikhul Khadim naka jekk sëñ Omar. Mhm. tey bu Sénégal demee ba egsi fi mu egsi. suñ xo suñ xo mi seetoon misaaxa ardiya bi. li mhm. sëñ Tuubaa occupé. Mhm. ci suufu Sénégal la fay bay di ay taalube. lañ fay génnee bu buñ ko génnee woon ci li Sénégal di dundee. defe naa ne dana ëpp cinquante pour cent. bu beneen laaj amee ñu jàll incha allah. jërëjëf Serigne Makhtar ci leeralu am solo yooyu jëm ci économie ak sëriñ Touba muy al iqtisad inda Cheikh il nga jàngat ko ci façon yu baree baree bëri waaye li ma gën a téye ci sa biir wax mooy mag ñi mu yoroon amu ci kenn koo xam ne amu woon métier kenn ku ci nekk am na loo loo mënoon waaye nga gis ne Serigne Touba ku am xaabiliyé la ku am approche la ci yu baree bëri bu dee ci fiq da naan sëñ bi xanaa ci fiq rek loonu woote ci diine dam loonu woote nga ñëw ci euh, tarbiya ruuxiya bi ñu doon waxtaanee émission bi passé mm-hmm. nga jàpp ne sëñ Tuubaa ci tarbiya ruuxiya dong la concentré woon ba talul mm-hmm. yeneen yi mm-hmm. waaye boo ñëwaatee ci économie nga gis ne sëriñ Tuubaa day am sumul ya ci lépp waaw day daj lépp bu dee liggéey soññe na ci bu dee jàmm yàlla soññe na ci nga xam ne liggéey boobu nga wax muy économie euh, nga wax lu am solo euh, juróom ñaar téeméer boo jël juróom-ñaar fukk yi juróom-ñaar fukk ya la ñuy dundee di des ci seen réew ma waaw di jugee ca réew ma mhm. ñooñu ña nga ci yoonu ñu ngi ci yoonu yokkute ah, waaye réew moo xam ne la ngay dundee tànk yaa ngi koy dépendre ci ay réew jàmbur mhm. ak réew moo mën a doon dugg nga ci ndool ah, te dëgg la mhm. li koy wane mooy dëkk yu baree bari ci corona bi passé rek yàlla na yàlla na fi géej waaye wane na lu baree bari ne réew day day waajal boppam rawatina ci wàllu économie Serigne Makhtar économie boobu la Serigne Touba jëfandikoo ba taxawal mboolem li mu taxawal moo xam ci wàllu njàng la moo xam ci wàllu jàngale la moo xam ci wàllu bay dundee la moo xam ci finance activités yi nga xam ne ay activités yi boppam la muy jumaam yéeg daaraam yéeg ak ña koy taxawu boo ñu doon comparel économie yi ña toppoon Serigne Touba fañ tegoon liggéey ak suñ jamono ji ndax damay déglu kilifa bu baax mu koy nettali mën naa tudd turam sax Serigne Mbacke Abdourahmane daan day wax ci ci phénomène yu bees yi bu ñu koy fett bu ñu koy comparé démb gis koo xam ne benn xasida dong lay mën moom téye ko ne lu dul lii du dara bi xaddi nazar ci liggéey ci yëngatu barke ut loo mën a dundee téye sa ngor téye sa fulla téye sa fayta téye sa honneur te sëñ bi ci la woote woon loolu boo ñu koy comparé ak mañ ñi dem donte ne ñoom dañoo jàkkaaroon ak sëriñ bi dàq ko teewul comportement yooyu lañ amoon jërëjëf xam naa bi ci jiitu mooy sëriñ bi li woon ci moom da koo def ci ña ko toppoon jenn doomi sëriñ Touba joo xam ne mas na ñoo xam ci moom lu génn di bay di dunde ak di bay di dimbalee jenn jo jenn doomi sëriñ Touba ju ci génn amut dëgg la soxna muslim mu nga doon wax mhm. gis nga li mu doon liggéey mhm. lu mu yaatu yaatu da ko daan delloowaat ci bokki jullit yi ak bokki paalu bi bu ñu xooloon Cheikhul Khadim bi mu fi jógee ñetti téeméeri cheikh ñoo fi ñoo fi des. Mhm. ñoo ko toppoon. Mhm. bi Cheikh Saliou Mbacké di làqu di wuy ji sunu borom bàyyi na fi douze mille personnes kon defe naa ne bu dee avancé bàyyam bàyyi fi ñetti téeméer. Mhm. mu bàyyi fi fukki junni ak ñaar. li ma bëgg a wax foofu rek mooy lawoon ña ko yoroon ñu ngi ko doon doxal muy jëm kanam. sëriñ bi nag ñi ko toppoon. li tax mënuñoo yem ak ñii la abada waxoon rek ibnu Samit ñoom dañ daan topp ndigalal sëñ bi te daawuñ ci dàq intérêt suñu omar sëñ bi nee na ma bay dañuy defe na ñoom bay ba ba ñuy faatu rek sëñ bi ne naay jàng xasida sama yoon ci xasida naa ko jàng ni ko sëñ bi santaanee rek sëñ bi ne naa jàng alxuraan ñaar fukki isib amatuma meneen mécc nga xam ne ñoom li leen sëñ bi te kat laa tafaalu shay'an bi xayri idni fala la digal ci sa njëriñ nekk lim lay tere it mhm. ci la sa lor nekk waraloon na mag ñoo ñooñee nag mhm. seen tool yañ amoon mhm. ak seen taati garab yañ amoon suñ masaan a xëytool ba wàcc daal di jàng ñaar fukki isib teg ci ay xasida ba saf-sap tooy xëpp yéeg sëriñ bi amatuñ feneen soxla lu dul dallu bu sonn jotee ñu sonniwaat bu dallu jotee ñu dalluwaat fa ida faraxta fansab wa ila rabbika farxab ñaari baat yooyu nga xam ne li ñuy tënku tënku ci jaamu yàlla gi terewul ne uti luñ dundee bu wér te kenn ku nekk kat la gën a kiimaane mooy na nga wut na nga wute looy dundee bu doon léegi mën ngaa fekk nit mu làqatu ci nit yaakaar doole kooka mu dolli ko ci dooleem mag ñi daawuñ def noonu dëgg la da gis koo xam ne fukki yi naaru góor a koy xëyal mhm. muy benn njaatige ca wetu toolam nga gis fa koo xam ne am mbaam la yor ak doomam ak soxnaam kese mm-hmm. Mm-hmm. te du tax mu liñ naan boroom ŋàdd du faale boroom pañe mm-hmm. noonu la ma ngi daan def kenn ku ne la nga daan def daan ko defee na ko daan defee bu rëyee ba rëy a rëy yàlla la ko jox bu tuutee bu tuutee nga jàpp ca loolu ñuy wax alqanaa kanzun laa taayaf la doy lu googu nag la la njëkk a def ci ñoom li ko waral mooy liggéey bi moyen la mais du du du terminal du xaaya du xaaya mais wasiila la wasiila la léegi nag dina xam ne ne léegi liggéey bi moom dañ leen ko sant ñu koy def mhm. jaamu yàlla googu ñu koy booleel moo tax seen xol yi mën a sax ca àll ba moo tax lañ amit mu doy leen lu mu néew néew moo tax it lañ am ñu mën caa yëkkati jox keneen ndax lan diggante ashox mhm. ak alboxlu mhm. yépp mu mucc nañ ci la ko waral mooy ñoom sëñ bee tax lépp sëriñ bi mhm. bu ñu amee mën nañ ko joxe ngir sëriñ bi mhm. bu ñàkkee nañ mën nañ ko muñ ngir sëriñ bi mhm. suñuy wuteet dañuy jàpp ne ci ndigalal sëriñ bi la ñuy wut ñett ñii bu ci gone tey yi nekkee jàmm dañ ne béy waaye nag ku yàkkamti sa wutiin dana ñaaw ñaaw yi daa bari tibb loo wuta tibb yilif loo wuta yilif dem foo xam ne da nga fay rey sa bopp jaar ci ndox meeg yëpp a ngi ci biir yooyu yëpp ñàkk a doylu ak ñàkk xam ne fa inna risqa munqasimun yati ilayka walaw fi jabhatil asadi dëgg la su boobaa kon boo tolloo ci bay da nga bay boo tolloo ci commerce nga def commerce ba nga man bis bu ko sun borom naree andi kenn mënu koo tee ñëw la waaye su ko nërta andit kenn mënu koo tax a maa yaftaxi llaahu linnaasi min rahmatin la mumsika laha nee na lu yàlla joxe ci xéewal mhm. kenn mënu koo tee waaye wa maa yumsik mhm. falaa mursila lahu lu mu am mhm. jenn waaye mënu koo amal. kon loolu nag ci la mag ñi tënku woon. Mhm. lañ am mu doy leen. Mhm. te nag la tax mu mën leen a doy mooy dañuy am yàlla. Mhm. nit ki saa yu amee yàlla leneen lu mu am lu mu tuuti tuuti mu doy. su amul yàlla nag lu mu am lu mu rëy rëy ab coono la ci moom. jërëjëf Serigne Makhtar ci leeral bu am solo boobu. jëm ci économique ak Serigne Touba. kon leeral nga ci sa biir wax ne. mag ñi liñ daan toggoo yëpp ci ay coono terewule na uti luñ dundee. Mhm. ndax dañ ci joxe misaal ci yonent yàlla daawud alayhi salaam. Mhm. da lekk ci lim daan lim daan dundee. ndax ah. daa ëpp barke. Mhm. daa ëpp barke tey daa ëpp ijaaba. mooy nit dañ ne buy ñaan yàlla boromam di ko jaamu. bokk na ci liy waral li muy jaamu ak li muy ñaan gën a nangu mooy lekk ci. lu mu liggéey ci loxoom. tam mhm. yonent yeeg mhm. saalixuuna yi kenn ku ci nekk rek. Mhm. amoon nga amoon nga métier boo mën daan ko daan ko jëfandikoo ngir dund. kon Serigne Touba foofu la woo ñu ko topp démb ak tey na. Serigne Maxtaar boo ñu doon tënkal kon euh, njariñu. ci minute yu gàtt. njariñu économie. ci murit bi nga xam ne. lépp lu Serigne Touba réalisé. ci la réalisé wu. mooy fexe ba al i'timaadu ala nafs d'abord. mooy sukkandiku ci sa bopp ngir amal dara mm-hmm. loolu boo ñu ko doon tënkal ci minute yu néew ak ban message ngay joxe jox jeunesse bii tey nga xam ne lu baax rek lañ bëgg moo ñu topp Serigne Touba. Mm-hmm. lu baax it rek it lañ yéene moo tax ñu bëgg Serigne Touba. Mm-hmm. am ci ñoo xam ne bëgg nañ waaye yàlla dogal na xamuñu. ana ban jàng ana ban conseil ngay ngay jëmale tey ci jeunesse bi ci wàllu liggéey ak sukkandiku ci seen bopp ngir mën a taxawal dara ndax nit bu liggéeyul du mën a tee ngorom. nit bu liggéeyul yu baree baree bari du ko mën ba ci asaka jii doo liggéeyul doo ko génne aj màkk gii boo yorul doo fa dem yi nga xam ni sëñ bi da koy santaane te lépp di dem dellu ci ci lu ñokkali lislaam moo xam tabax jàkka la moo xam tabax jumaa la moo xam tabax université la ku yorul du ko def kon ban message nga jëmale ci jeunesse boobu ah, loolu day sëñ Omar jëf soo si moom suñu borom da koo andi lal ko tiimale ci asamaaw si ndox mi di jóge asamaaw di wàcc ci suuf si yooyu boo xoolee xaysiyaat yi la suñu borom pare. xaysiyaat mhm. yi nga xam ne moom mënut ta ñàkk. Mhm. la indi muy installation bi. bi mhm. noppee nag li des noonu la war. ñooy gor ñooy bay. ñooy récolter muy ñooy góob. wala ñu deqi. door a lekk. kon ku xëy la waa ji di ko ne jàpp loxo yonent bi ne ko da ko daa ñëw ne ko nuyu nii mu ne ko andi sa loxo mu ne ko loxo bi kat daa mu ne ko lu ko def nii. mu ne ko liggéey mu ne ko kon nag sa loxo bi amul benn loxo bu ko gën a tedd mooy loxo boo xam ne dafa liggéey ba ñagas fenn fu ne dagg mu ne ko bañ a jox yonent bi yonent bi ne ko jàpp loxo ne ko sa loxo bi laa soxla allahu akbar kon huwa le huwa anshaakum min al ardi mm-hmm. wastaamarakum fiha mm-hmm. min al ardi mm-hmm. suñu borom moo ñu sa sos ci istimaar bi noonu la war istimaar boobu nag mooy dundal ko waa géej ñu tudd leen ay mool mm-hmm. am na lu ñu war a dundal ci géej mm-hmm. waa jéeri ñu tudd leen ay baykat am na lu ñu war a def ñeneen ñu nekk feneen am nañ lu ñu war a def balaa kenn lekk danga bay mbaa nga wóot mbaa nga def lu wuutu bay balaa kenn naan da gas mbaa nga def lu wuutu gas mm-hmm. lu wutu gas na mooy nga am sa xaalis jënd wala nga ñaan ñu may la moo tax gis nga euh, daruriyatul xayaat mooy inna laka allaa tajuuca fiiha wala taxra ah, ah, mhm. wa innaka laa tadmau fiiha mhm. wala tadxa ñeenti yi rek mooy àdduna mhm. te nag ba doo fi xiif kon da wuti lu lay fegal ab xiif ak mën a doon ba doo fi mar da nga fexe lu lay aw mar ak lum fi mën a doon wuti kon lu la mën a fegal ak rafle waaye doo tëb rek mën a woddu mhm. te fekk ji moo dara mhm. niki noonu boo fexee ba fanaanoo bitti mhm. kon na nga tabax mbaa nga takk ñeenti yëpp ci lan lay tënku mooy dund dunduk àdduna mooy iqtisaad mooy iqtisaad rek su boobaa nag sëriñ bi ñi mu fi andi woon lam leen doon defloo mooy bëgg bu ëllëgatee ñu am fuñ dëkk te am luñ lekk te am luñ laan naan te am luñ woddoo dëgg la balañ koo man it leen di jaarale ci ñaqu jë Cheikh Salim Mbacké nee na yoon wi ñeent ko lal alxuraan yu ñuy jàng xam-xamu diine bu ñuy jàng xasida yu ñuy jàng ak nangoo sonn dëgg de ñeent yooyu nag bu ñu ko xasee ba dégg mhm. kon taalibi bi toll nii ci fii ñu toll nun mhm. li nekk ci kanamam mooy lii mhm. dana doon ab baykat mu dem bayi te doy loolam cay am mbaa muy ab jaaykat mu dem jaayi te bañ a yàkkamti mbaa muy ab nappkat mu dem di nappi te doy loolu lam cay am mhm. mbaa muñ ab bureaucrate te lañ ko dénk mu jubal ko mu jubal ko macha allah su ko defee yent yi moom ku ko def mhm. sag mujj mhm. mooy da nga mas a ami la yàlla bindal ci sab jë te suy dikk sa ngor dana rafet jërëjëf mbokk yi ñu ngi doon waxtaan waa ngi noonu euh, ñu àndoon ceeg suñu mbokkum daara borom xam-xam Serigne Makhtar Kébé moom Cheikh Salifou Mbacké ñu doon jàngat Serigne Touba ak iqtisaad te mooy Serigne Touba ak économie ku wax économie wax suqali ku wax suqali wax mbay wax napp wax sàmm wax yu baree bari mm-hmm. te mooy yi nga xam ne ci la doomu aadama mën a sukkandiku ngir mën a dund ci àdduna dund gu teey mm-hmm. te du ànd ak euh, yi nga xam ne day xeex yenn yi nga xam ne yàlla daf ko moñaaleeg doomu adama ndax moo ko teral yàlla teral doomu aadama kon teraanga jooju mbooleem lu ko fi nar a jëlee moo xam ci taxawaay la wala ci wax rek alxuraan day ñëw baare la ne lii kat jaru ko am na moyen yu suñu borom sàkkal ngir nga mën caa jaar ngir dund dund ci jàmm dund ci xéewal dund ci sécurité te loolu mënta am te nit ki assuré wul boppam ci wàllu dund comme ni mu ko junjee léegi ci laay ji yàlla waxoon yonent yàlla aadama alayhi salaam mm-hmm. waroo faa rafle waroo faa xiif waroo faa mar waroo faa nangam waroo faa nangam yooyu yëpp nag mm-hmm. day day dellu ci lenn mm-hmm. mooy yëngatu ji ngir fatt yi nga xam ne moo la mën a àggale ci yooyu nga xam ne mu ngi koy tudd kon sëriñ Maxtaar ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di ñaan yàlla yokk xam bi te barkeel ko waxtaan wi am na solo trop Euh, balaa ñu yëkkati jotaay bi rek ana yan kàddu ngay tëjee waxtaan wi incha allah. xam naa am réew ñëpp a ko bokk. Mhm. koo dajeel soo ko wanee sa carte d'identité mu niroog carte d'identité am mhm. ngeen ak mbokk mooy yéen a bokkum réew. balaa dara xew dara xew. Mhm. boo waxee sa gimiñ ki dégg sa wax yéen a bokk aw làng. muy pël ba ca pël ba wolof ba ca wolof ba. ñi nga xam ne nag. ñoo bokkaat métier yi door séddalikoo commerçant bi am na bokk ak moroom commerçant borom métier bi am na bokk am na mbokk ak moroom métier jàngalekat bi am na ak mbokk ak moroom jàngalekatam kon bu ñu boole waatee lépp lu ñu boole mooy ak nationalisme muy ak wataniya ak mu na mooy ñoo bokk réew mi réew mi ñu bokk nag moo soxla woo yu bari léeg mu soxla woo loo xam ne mool yi doo nga ko man buñ ci duggee maagee wax ku mel na noonu da ñu bàyyee ko mool yi léeg mu soxla woo loo xam ne baykat yi dong nga ko man bu buñ leen ko bàyyee ñoom itam daañu ko indi léeg mu soxla loo xam ne ña jàngoon ñoo ko man kon loolu nag bu ñu ko boolee lépp mooy baatu liñ tuddee économique mhm. bu kenn ku nekk indee la nga man mhm. te bi nga koy indi nga sontal ko ndax sunu yonent bi saa nee na suñu borom dafa bëgg koo xam ne bu jëfee day rafetal dëgg la jëf ju rafet nag mooy dafa yaatu lool xam naa bii du xaj ci émission bi mm-hmm. waaye kon daal mooy loo xam ne boo koy bëgg jox nit mm-hmm. da nga koy bëgg rek mm-hmm. waaye bu jël mbalit sànni des ca nga ko ko jox sa morom dëgg la kon nag bokk yi bu ñu bëggee defar réew mi kenn ku nekk lam man ci réew mi lay indi te bu koy indi mu wóor ko ne lii muy indi baax na suñ bëggee defar réew mi dañuy wattandiku lépp loo xam ne ku ko indi dana doon ngaañ